nga ci loo nekk ñaareel bu jongo ma nga de ah yu man gëj naa laa gis ci loo nekk ma aw buru këram ni ngay toogee neex na ma de nii rek nga def ci ngoon maa masha allah yow masha allah ndeysaan dëgg neexul nampaloo ba futi barki yoo den tibi tey moom damaa kontaan ci yow macha allah ni nga ci kaw dama fi bàyyi xam nga aaw ak ñaar ñoo far. ay ñu ñëpp daal ñoo yem. xaaral ma ngeen dem ci bitig bu tolloo lu sedd nga naan. yow defal loolu rek yow. macha allah ni ngay waxee lu sedd sax daa fay pili. man maa bëgg ñaareel bu pare te yow da ngaa pare. dëgg ne xam ne mën naa dugg fu nekk. ale sax mën naa faa dugg yëkkal ma ci saa génnaat dëgg ne yow. ngay jaay dem rek. dem rek ñëpp laay ma waaye yow yaa ngi wis sa bopp waaye luy wis ah li may wis de sa jàmm la yow luy wis sama néeg bu weextaan dama laa géntal muslaay la sama waajee ma wax boo ñëwee ba te néeg ba waxtaanee moom ba muy dem nga wisal ko ndax li nga ko géntal moo ne dañ ci moom dama laa géntal de. waaye booy bu mu tooy. dama laa géntal laa ilaha illallah. tiig ah. man daal kii moo ñëw damaa sees. mu ñëw fii yaayoo yaay di ma baab naan ma ñaareel waaw ma ne damay dem dina ko boisson mu naan ma fàtte fi sama poset ma fekk ko muy wis. mu wis nag ba tooy xepp ba yàqu nii. non moom lan lay wis laa bëgg a xam. dama koo géntal loo xam ne bu ko dalee rek du baax ci yow lii rek moo tax. la ilaha bu dee bi. la ko joxe. mais waaw yow bu dee bi. mustaay la de. eh bàyyi bu dee bi waaw yow eh, ma ko baral yow. yow dafa ndànk rek yow baral jaan yow. yow ne eh xaw ma eh. yow. eh noppil yow eh lii foo ko jëlee ah, yow. jaan wala yow. yow la dina fan nga jëlee lii boo ko waxul tey dama lay rendi fan nga ko jëlee. ay waay bu eh, wax. foo jëlee lii. la ilaha illallah. eh yow nijaay woo ko ah, jëlee laa la wax doucement rek àndal ak sa sal doucement lan muslaay la te baaxut li ngay def nii da koy toj baaxut li doucement rek. wax nga foo jëlee lii. policier Cobra lay ñëw jàpp na ay waay. yooyu eh, Cobra man jaay. Eh, eh, Cobra policier da lay tëj. Ah, ma yaakaar déglu ma bu baax yow laay waxal. foo jëlee lii. Ah, sa jabaram ma ko wax pour ma wisal ko daa teggi na. sama ban jabar. wax ko balaa nga ñu rek. awa saw de moom moo ko jox. yaa ngi ci jàmm. nekkuma si jàmm doom kanam moom nu mu mel nii moom temps yi ah, neexuma def nu may def waroon ngaa firi nag ma sang yaaram bu baax bi daal damaa wutal wujj gis nga ko sëy si na bërki démb mooy njuuma loolu ci néeg bi néeg bi ma deen dekk te lu ci gën a garaaw nag dafa commencé jéng gis nga yow ni ma ko muñalee Sénégal ñëpp teg ci seen bët wallaay man ak moom ba ñuy jug di daanu ba léegi tey mu tabax ay immeuble yor ay otoom la lu ci gën a dee nee na da koy yóbbu mu tukki maa ci weewu bët foofu sa baaraam ma ñam mhm. kooku lu tax ma ne dalay luppe nattu jeeg ji laa la wax te danga doon làmb mhm. dañ nga mhm. sa coon mhm. jeex na xalaatatoo maa ngi nii toog lépp laay lijjandi looy wax nii kii day génn ci biti abal la. du ah, dem yow yaay dem man de bu génnee ma sant ndax maag sama jëkkër dañoo yàgg ba ba dara dul dara lañ nekkoon léegi mu yor ay biam bëggal wut xale bu ndaw teg ko sama kaw. déggoo ma de nee naa la. man damay dugg ci kër mbër. yóbbu fa lama fay yóbbu def fa la fay def na teur genn te ken duma gis. ah man de dom day loo ma si jàppalee ma jël. neena naa serigne biñ doon def. xam nga jéeg ji dañoo sos nattu serigne wa wax nga deug yaay deug neexul te yow da nga teggi. looy wax ni barki yonenti bi. ah fi fi fi ma nee la sa rongañ ferna ah bouteille bi la la indil ni, looy wax bouteille bi ya nek ni bouteille bi la la indil ni ko ki du ma sa dem. Ah. man bala ma de way kadi di seytaane nan ñaarel booru karam ñaareel luy luy ñaareel ñaareel xaritu deukeram ñaar classe te aawa rek mat li nga doon sha allah butel baangi nama koy defee graw na butel be nek ni ni jéeg ji jéeg ji la wax muy demee nag jéeg gi noot seen mm. ci gaaw wa butel bi numuy démé butel bi xam nga nan lay démé mm. dang koy wis ci biir néegam néegu kan ah ya ma gën mënu ma fa dugg di am ndax man ak mom duñu wax ah kon séri dina ma jaaxal ma dugg biir néegam wiss ko man may xaritok mom mm. lijeenti ko wis ko ci biir néegam. doom day de boo defee loolu ba mu dem sama or ji nekk ci sama bi boîte bi lépp laay xaaj ci digg bi jox la. pour ma wisal ko daa teggi natt. ma anta nooy moytu sa noon. Serigne Modou Bar moytul sa noon. ko awa foo nekk. nattu Serigne ci suuf maa ngi suuf di la xaar ci néeg bi. ma anta nooy moytu sa noon. Serigne Modou Bar dama lay intéressé laay boole rek mon amour tey ma ne mon amour kii da koo xam kii maman xam naa ko ok foot nga xamee kii kii sama la voilà léegi butéel bi lay indi fii si néeg bi saafara da ngay déglu rek ma wax la butéel bi dafa indi di ko tuur si néeg bi tuur waaw pour liggéey maa maa kii pour ñu tas mënta ne te nee mu kenn yónniwu ko dul yow moo ko wax mu ngi nii taxaw te nee nga ma xam nga ko xam naa moo ko wax kii xaraam yónneewu ma ko de yónneewu ma ko. ah yow tamit bul ma ko jiiñ ndax yow yaa teggi natt natt natt wis daal yaa ko teggi bu ma dugal man làkkat laa te xaw ma yi caaxaan moom dugguma ci sama papa musul dem police sama yaay musul dem police suñu famille kenn musu faa dem police leen nag waxi noppi na ma dimbali rek balaa ma fee tëj may ëtt fe di dee. dimbali ma rek. waaw kay lijjanti koog moom. te nga may ma ma jàll. li ngay nekk ci kër gi mënagoo dem de taxawal rek yow. li ngay nekk ci gàlle bi yëpp ay waay suturaam yow nekkee woo lenn bu dul pour yàq sama diggante kii yow loolu moo lay indi si kër gi bon bi maa koy réglé da ngay noppi bi yow bi si nekki tey nekkatoo sama jabar fase naa la jël say bagage sama kër déedéet neex nag déedéet baal sinon baal ma ma yow lii dinaa ko baal xanaa damaa dof xaraam hé jógal baal ma waaye jógal nga naan ma baal ma hé eh, jógal waay merde demal jël say bagage yaa ngi de nga génn kër gi yow laa waxal. noonu biir a ngi nii nijaay. yow nag yaay noonu poqataan yow yaa yées. waay yow xam nga ne mosuma xam ay saafara. yaa ma boole ci seen natt waaye nag yow nag sama sëy bi nii du <laughs> ay